Hmm. marché yi lakk bëri na jamono ji ginnaaw bi ñu nemmeeku altine bi weesa fële ca Ocass ba tey ca Touba ci fi nga xamante ni moo di Mbàkke am na tamit benn lakk bu ñu note démb ci guddi gi lii nag war ñu samp laaj ana lan moo tax saa su ne rek ñuy gis suñu marché yi di lakk ndax ci installation yi la wala lu mu doon loole jot na ñu def ci ab taxaw seetlu ngir fàggandiku jëf ju ni mel